su bëggee am information yu wóor anam bu mën a doon religion politique société développement bi abonné doon membre Mouhalim TV su ko defee da am. ne diine diine yi cosaan ñëw leen ñu jàngi te xam ne diine diine yi ku du jàng réer ba ni mër day toroxaan jàng du weesu ku du jàng réer ba ni mër day toroxaan jàng fi njëkk jàng fi mujj képp ku jàngul du doon xamaan jàng fi njëkk jàng fi mujj képp ku jàngul du doon xamaan réewoo réew jàng nga ko yor réew mu jàngul du jug xusuraan réewoo réew jàng nga ko yor réew mu jàngul du jug xusuraan kon nag nga xam ne diine ji leen jaahil du mën a doon xutbu samaan kon nag nga xam ne diina ji jaahil du mën a doon xutbu samaan jaahil du jiite jaahil du aatte jaahil du yore réew parlamaan yàlla ko wax de yonente wax ko sëriñ si seede fii kulli xaal yàlla ko wax de yonente wax ko sëriñ si seede fii kulli xaal Seex Bamba nee na Seex Bamba nee na jullit na jàng liggéey te jaamu ba dem jinaan Seex Bamba nee na Seex jullit na jàng liggéey te jaamu ba dem jinaan ni ma jiital bu si daara manatuma laa fay maa sant daara yow mi ma yóbbu ci daara manatuma laa fay maa santu ci moom dana ne lu mu jum te bilam dana woo lépp dana bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi jalla wa ala wa salawatullahi wa salaamuhu ala muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi ghuril mayamin ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا الشيخ أحمد بامبا سائلا المولى أن يحفظ خليفته آمين بسم الله الرحمن الرحيم سائلا المولى أن يحفظ خليفته العام الشيخ محمد المنتخى البشير ويرعاه من كل سوء السيد مفتش التربية والتكوين السيد المكلف بشؤون المدارس الحرة في تونس Fayda حفظة كتاب الله والطلبة المتفوقين في مدرسة كرمام حولوه والشكر موصول إلى المعلمين والمراقبين وجميع العاملين في المجمع على الجهود المبذولة في تربيتنا وتعليمنا فجزاهم الله خير الجزاء دمتم في رعاية الله وحفظه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 ak kilifa gi jiite jàngukaay kër maam Awaloo jàngalekat yu teddi soxna si nga xam ne moo jiite way juru dongay yéen kilifa yu teddi te màgg sama mbokk dongay yéen gan ñi tedd ñi lu rëy la ci man lu màgg la ci man ma taxaw ci seen kanam ji xew-xew bu am solo bii ngir jàllale ci seen kanam kàddu gi nga xam ne ak cant rek moom la feese ak tatagal ak dalal tibbee ko ci suñu xol waaye def ko tamit wutu suñu mbokk dongay kon maa ngi tàmbalee samay kàddu ci suñ way juri yéen ñi nga xam ne yéena yu njëkk jubbanti yéena yu njëkk jubal ak seen kem kàttan ngir dëgëral suñu jàng loolu lu fees la lu ràññeeku la ba mënee su ko wutal njëkk loolu tax na maa ngi leen ñaax ci ngeen way ci seen yoon wii ndax loolu kat daf ñuy dimbale ci dëgëral relation bi dox ci diggante jàngukaay bi ak kër gi waaye mën a sos benn environnement boo xam ne dana tax donga yi gën a kiilu ci li leen tax a jóg ci seenum njàng ak mën a am ay njariñ ci seen ëllëg bu loolu jàllee may fàttali sama mbokk donga yi solos xam-xam ak solos jàng ci dundug nit ki ndax bépp bis boo xam ne def ngeen ko ci jàngukaay bi yéen a ngi fàggu ay xam yu yees ak ay mën man yu wuute xam mooy ngàndaay li nga xam ne ci nañ mën a jàmbaarloo ak yàqu-yàqu jamono yi nga xam ne ci nañu dund jamono jii sëriñ tuubaa qaada lahu llahu maxtaara lahu feddali na ci am mbindam nee na yaa ayuha shubbaanu in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal sëriñ tuubaa nee yéen waxambaane yi soo leen bañee gàcca na dem jàngi balaa ngeen liggéey bu dee lu jëm ci sëriñ muxtaar jenn yal na yàlla sàmm te aar dama bëgg wane suñu cant ak suñu mbégte ci dugal gi muy dugal loxoom ci wàllum yar ak jàngale ak bay gi muy bay aw waaram ci yar ak jàngale ndax soxna daara joo xam ne mooy nga tàmbalee ci mbaarum zeng ci atum 2006 tuddee ko kërug alquranul karim mu woyal loolu ci itaab boobu ba tabax jumaa ju mucc ayib muy jumaa joo xam ne diiru koor gépp dañu fi amal fulk aljuma yépp ñu fi amal ay waxtaani diine yu fasandikoo ak ay ndogu diiru koor gépp donga yi nga xam ne ñoo watt alxuraan ci daara ji ñooy taxaw naafila sëriñ maxtaar wayal way ci loolu ba tabax jàngukaay bu yaatu bu taaru bii tuddee ko complexe scolaire kër maam awlo waaye xer gum xer ci xam-xam tax na jagleel na ko ñaari nekk ci këram jàngukaay bi génnee ay njureef ba àgg tey doon taax mu màgg mu taaru mii di jàngukaay boo xam ne ay yàggoom moo ngi tàmbalee ci atum jàng mi 2023 2024 bokk na ci sembo sëriñ maxtaat jenn wut ay warukaay ngir jàngkat yi ak liggéeykat yi bokk na ci ay sembo seet sos barab bu ñuy jàngalee liggéey jëf yi sëriñ maxtaat jenn jëf nag moo mat a jaw jëm moo jara rawante balaa maa tëj maa ngi jëmale kàddu cant ci soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikh Abdul Ahad Mbàkke di kilifa jàngukaayu sepkaam ndax jëf yu am solo ak yokkute yoo xam ne def na ko ci yar ak jàngale moom soxna Maymunatu Mbàkke yemul rekk ci sos jàngukaay waaye dafa jëmbat ak bëgg xam-xam ci doomi tuubaay yi yàlla na ko yàlla sàmm te fee ko aw yu amin maa ngi daaneel sama kàddu ci sant suñu jàngalekat yi ak liggéeykat yi jàngukaay bi ñoom ñi nga xam ne ñoo ñuy taxaw di ñu saytu di leen sand yéen suñu gan yu tedd yi jàkkonteeg gi ngeen ci ay coona ngir teewe suñu bis bi ñuy sargal suñu mbokk donga yi mokkal alquran ak suñu mbokk donga yu jiitu ci nacc yu mujj ci jàngukaayu kër maam awaloo donc Mouhamadou Fadal Diop moo nekkoon ci kàddu gi di jàngee classe CM1 CM2 majalis wasalaamualeykum wa rahmatullah ci xale yi njëkk a mokkal ci alxuraan bokk na ci ñi njëkk a nekk imaam ci jàkka ji macha allah li ma gis fii nag ñoom sëñ imaam Abdoul Khader sëñ Moustapha Lo Mor Diagne am nañ problème ndax bayaan bi moom macha allah danga nu ko defal ci jàkka ja Mor am nga problème sëñ al imaam Cheikh Abdoul Khader am nga jafe-jafe xaw ma ne woon man nga wolof fii kon nag na nga góorgóorlu dégg nga te te bàyyi yi nga xam ni te macha allah am na yu yuy xew ca léeg-léeg ginnaaw bu béglante amee ba noppi nag am na yuy xew yow fexeel ba bu ci bu ci gis mukk yooyu moom xam nañ ko jëf macha allah jëf jërëjëf jëf te moom waajuru jigéen wi dafa dafa bëgg lu baax li tax ñu di ko ñu di ko wax xam nga day am ñoo xam ni dañ leen war di set di leen war dañu am kilifa yoo xam dañuy am ak dogu ci bëgg waaye léeg-léeg waajur weneen wa jaar fële moom mii da cee bokk waajur wu jigéen wi jàmbaar lool lool lool kon na nga topp waajur wi ndax li tax ñuy wax loolu ni sëñ Maxtaar ma ne Basiir noonu la ma ne Nasiir waaw ni ma ne Basiir ñoom xam nañ luy Basiir ak Nasiir ci laaj Basiir moom xam na Basiir mooy pompe terre beeg ñoom ñoom xeeti masrubaat yi ñuy naan yooyu yëpp yooyu yëpp xeet yooyu yëpp ñoom dañ leen koy jox waaye nag Nasiir bu jotee nag ñu jaayante. ma li sëñ Abdou Lahad Lo doon wax léegi macha allah biig ci guddi waxtu wii nii li tax may wax loolu maanaam biig ci guddi bi ñu jógee fii am na ñoo xam ne tëdd nañ waaye am na ñoo xam ne ñu ngi woon ci Nasir maanaam bañ am na xam ne dama doon xeex ak ñoom ci kër gi xeex nañ yëgoo ko al imaam yëgoo xeex bi dem xeex bu metti am na fa ñaari dongo yu nekk fii kenn ki di doo doomi soxna nday wadd ak keneen ku ñëw suñ Cheikhu naa Mbàkke yëg nañ wax nañ la liñ daj biig lu metti lañ daj waaye li ma gën a neex nag daa am ko ñuy wax Serigne saaliw sunu doom la bi biñ jëflanteek ñoom ba noppi dugg ci daara ji moom it daa am lu mu def lu metti ñoom it ñu teg ko lu metti waaye bi ma ubbee te loolu deux heures du jot na bi ñuy xeex ñun ci daara ji deux heures du jot na kon loolu am na même bu nasi damay wax ni moom da ngay jub ñu daje ci escalier yi doon ay locage amuñu problème soo jàddee fekk si ma ci bi ma duggee muraaxi bi yor euh, sëñ daara yi tëddagul sëñ Saliou bi nga xam ne sunu doom la dafa dama fekk mu duma ko duma yu metti yu neex lool ma kontaan ci waaye la ma ca gën a yéem daf ko jox ab kaamil ni ko da koy jàng ci guddi gi taxawal ko nga xam ne sëñ Saliou gëm naa ni laata fajar di jot ma tegal ko ci yoo xam ne yu ma ko dig kon nag góorgóorlu leen xam xamante nañ maa ngi yéen ndax man damay jógee Ndakaaru di xeex si ba fii man dama am jot damay ñoom xam nañ ma damay jóge Ndakaaru di xeex si ba Touba waa jël autoroute bi fay 6000 xeex ak yéen delluwaat yéen ndax foofu moom ku fa ne dag ci njub te kenn neena leen seen waajur duñ leen fa indi mukk ngeen di am leneen munta ne lu baax lañ bëgg ci yéen xam nañ ko bu baax a baax a baax lu baax ndax ñaar ñi nga xam dañoo génnoon démb dañ doon jëflante ñoom kàddu yi ma leen laaj dama ni leen yéen su ngeen génnoon fi oto laaj laal leen wala ngeen génn fii ñu sàcc leen léegi kuy nekk responsabilité bi ñu ne ma yow may nag bala moo nekk man nag ma jëflanteeg yéen comme xam ngeen ni man lépp sama kaw la war a jëm si loolu mooy dënkaane loolu li sëñ Abdou wax loolu wax ñu koon ak parents yi dafa metti ñun li ñu yor ci kër ga 200 personnes ñoo xam ni li sëñ Abdoulaye wax am na ci ñoo xam ne bu ñu feebaree seen i waajur duñ ko yëg ndax dama ne fii ak li ñu leen di jëndal ci ordonnance matul cinquante mille bu ko seen waajur yëg ñun ñoo ko gàddu mën naa am sa xale bi léeg-léeg mu feebar ci weer wi fay lu ëpp quinze mille yi muy wax ci ordonnance am sa waajur du ko yëg loolu nag su fekkente ni yow doo ko yëg ñun ñu nekk ci sa doom yor ko di ca góorgóorlu lañ ca bëgg lu yomb la kon parents yi li sëñ wax gën leen cee góorgóorlu bu baax a nga fa yu jàmbaare waaye nag na ngeen xam ni kër ga moom ko fa ci njub ngay ne ci xam-xam ngay nekk am taggaluñ ko doom bàyyi luñ ko soppe soo nekkee boo boo boo góorgóorloo raw ca daara ci mën a mokkal yaay suñu soppe ren nag gis naa fi yeneen xarit yu bees yoo xam ni ñu doon tarif yi moom am na fi ñoo xam ne moom foog ñoom ay lëng macha allah li ngeen may wax naan damaa mën a jëlaate am na ñu bees ñoo jël fii ñoo xam ni moom bu ma yegg di leen lëng ñu yëg ca kaw ñu lekk pom jërë ngeen jëf eh, Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables invités. Nous vous remercions davantage d'avoir assisté à notre fête de fin d'année. Je m'appelle Cheikh Bamba Diène, je la classe de 5e. Je vais vous présenter notre marraine Sokhna Maïmounatoul Mbacké, déclarante responsable ZEPCAM, groupe privé Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Et aussi, je profite pour cette occasion de rendre hommage à son père et guide, le bacheur Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Que son âme repose en paix. Sokhna Maïmounatoul Mbacké est une actrice de l'éducation. Elle est née en 1951 à Touba. Elle est la fille aînée de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, troisième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba et Sokhna Khadija Sourang, issue à la forme ici à la foire de famille religieuse et, et éducatrice Mbake notable et essai Strong Elle n'a évolué que dans un environnement de Dara, d'abord chez son oncle maternel, El Haji Bamba Sourang. À louis puis plus tard dans une maison d'Ara, en l'occurrence chez les Djakate, où depuis qu'elle est vue de 1969-1970 jusqu'à maintenant, elle accueille, enseigne et éduque des talibés, filles à elle confiées par les disciples. Dans les années 1970 à 1990, Sohna Maïmounatul Mbaké s'est investie dans plusieurs domaines d'activité comme le commerce, culture, culture, maraîchage. Au milieu des années 2000 à 2005, elle a créé un internat pour les filles chez elle qui porte le nom de Daïra Cheikh Abdul Ahad Mbaké. Face à une forte demande, elle a décidé de la transformer en école franco-arabe avant de passer au statut de groupe scolaire. Sur le plan social, elle héberge des jeunes transfert, lose des gens domicile à tout Touba, des orphelins, prend en charge des enfants issus de familles démunies qu'elle nourrit, habille, soigne et ou scolarise. ce qui témoigne de son fort attachement aux valeurs mourides, musulmanes et sénégalaises. Elle est aussi très ouverte et connectée au monde contemporain. Elle a aussi effectué beaucoup de voyages dans des pays comme Arabie Saoudite, Mauritanie, France, Italie. En vu que les, vu que les enfants de Touba sortaient pour étudier, elle a décidé de créer une école française suite au ndigal du Khalif général des Mourides à l'époque Serigne Saliou Mbacké mais aussi avec l'autorisation de l'État. Cette école nommée JEPCAM fait partie parmi les meilleures écoles de Touba, gérée par une administration rigoureuse et exigeante avec des enseignants compétents et sérieux qui ont le regard sur l'élève du premier au dernier jour de l'année scolaire. Ce qui permet aux JEPCAM d'offrir aux Toubians un enseignement de qualité. Enfin, on peut dire que Sokhna Maïmounate fait partie parmi les plus braves dames du pays. Que Dieu lui accorde une longévité, santé et réussite dans tous ses projets. Merci. Amin, amin, amin. Chers invités d'honneur, chers distingués membres du corps C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de tous les élèves de notre école. À l'occasion de cette merveilleuse fête de fin d'année, en ce jour spécial, nous avons le privilège d'accueillir les représentants des l'IEF. Le déclarant responsable Serigne Makhtar Diène, le directeur bien-aimé de notre école Serigne Bassirou Gueye Euh, le directeur bien-aimé de notre école, Cheikh Bassirou Gueye, ainsi que nos enseignants dévoués et notre marraine de la fête, Sokhna Maïmounatou Mbacké. Je voudrais commencer par adresser un message sincère aux parents présents parmi nous. Vous êtes nos premiers guides, nos premiers enseignants, et vos efforts inlassables pour soutenir notre éducation sont inestimables. Je vous exhorte à continuer à jouer un rôle actif et attentif dans la vie scolaire de vos enfants. Ensemble, nous pouvons renforcer le lien crucial entre la maison et l'école, créant ainsi un environnement propice à l'épanouissement et à la réussite de chaque enfant. Investir dans l'éducation de nos enfants est une décision qui porte des fruits non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour notre communauté et notre société dans son ensemble. À mes chers camarades, je souhaite vous rappeler l'importance de travailler assidûment à l'école. Chaque jour passé ici représente une occasion précieuse de découvrir de nouvelles idées, de développer nos compétences et de préparer notre avenir. L'éducation est bien plus qu'une série de leçons et d'examens. C'est une porte ouverte sur un monde d'opportunités et de possibilité infinies. En nous s'appliquant et en tirant parti des ressources mises à notre disposition, nous sommes non seulement en train de forcer notre propre destinée, mais aussi de contribuer positivement à notre société. Je tiens également à exprimer ma profonde admiration pour l'initiative de Serigne Makhtar dans la création et le développement de notre école. Son engagement passionné pour l'éducation est un témoignage vivant du vœu de Cheikh Ahmadou Bamba pour l'éducation à Touba. En hérissant cet établissement, il a non seulement réalisé un rêve, mais a également ouvert à des générations d'enfants l'accès à une éducation de qualité dans un environnement enrichissant et respectueux de nos valeurs. Par sa vision éducative inspirante, Serigne Makhtar a fondé un daara en 2006 malgré des conditions initiales précaires dans un abri provisoire à son domicile. Dans un abri provisoire à son domicile, animé par un profond souci pour l'éducation et l'instruction de ses disciples. Il a surmonté tous les défis de l'époque avec détermination. Aujourd'hui, ce rebaptisé Darul Furqan, est devenu l'un des plus prestigieux internats de la ville sainte de Touba. En 2021, il a établi une école franco-arabe qu'il a récemment transformée en un complexe nommé Complexe scolaire Kër Maam Awalo. combine le système franco-arabe avec le système classique officiel pour tous les niveaux scolaires. À travers ces nombreux procès initiatives, Serigne Makhtar poursuit inlassablement l'agrément d'Allah. La construction d'une grande mosquée en face de son internat Darou Fourkhan illustre parfaitement cet engagement. Enfin, permettez-moi de rendre un hommage sincère à notre marraine Sokhna Maïmounatou Mbacké. Sa vision et son, sa vision et son dévouement exemplaire envers l'éducation sont une source d'inspiration pour nous tous. À travers la grande école ZEPCAM, elle a non seulement créé un bastion de connaissances, mais a aussi semé les grains de l'ambition et du potentiel chez tant d'enfants de tout bas. Son engagement à soutenir l'éducation représente un exemple lumineux de ce que l'amour et le dévouement peuvent accomplir pour notre communauté. En conclusion, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui et pour votre contribution précieuse à notre éducation. Ensemble, nous formons une communauté unie, déterminée à cultiver un environnement où chaque enfant peut grandir apprendre et atteindre son plein potentiel. Que cette fête de fin d'année soit non seulement une célébration de nos réussites passées, mais aussi le commencement d'un avenir encore plus prometteur pour chacun de nous. Merci infiniment. Vive l'éducation, vive notre école et vive Touba. Merci, merci, Abibala. Barakallah, Dear guests of honor, dear parents, distinguished faculty members, and dear comrades, it is with immense pride and deep gratitude that I speak today on behalf of also students of our school On, on the occasion of this wonderful end of year celebration, on this special day, we have the privilege of welcoming the Inspector of Education of Training Jagaba. The beloved director of our school, Sarin Basiru Gay, as well as our devoted teachers and our godmother of the party, Sohna Maimunatul Makke. I would like to start by sending a sincere message to the parents present among us. You are our first guides, our first teachers, and your tireless effort to support our education are invaluable. I, I to continue to play an active and caring role in your children's school life. Weekends strengths are crucial. Play an active and caring role in your children's school life. Together, weekend strengths a crucial connection between home and school. Creating an environment where every child can thrive and succeed. Investing in our children's education is a decision that pays off not only for themselves. but also for our community and society, uh, as a whole. To my dear classmates, I would like to remind you of the importance of working assiduously at school. Every day spent here represent a valuable opportunity to discover new ideas, develop our school develop our sky and prepare for our future. Education is much more than a series of lessons and tests. It is an open door to a world of endless uh, opportunities and possibilities. By applying this establishment, he has not only made a dream come true, but also but also of the generation of children access to quality education in an enriching environment that respect our values. Finally, allow to pay sincere tribute to, God, to our good master Sokhna Maymunatul Mbacké. exemplary vision and dedication to education is an inspiration to all, to all of us. Through the Great Sepcam School, she not only created a bastion of knowledge, but also sowed the seeds of ambition and potential in so, in of Tuba. Her commitment to support education represents a shining example of what love and dedication can accomplish for our community. In conclusion, I would like to express my sincere, thanks to each of you for your presence today and for your valuable contribution to our education. Together, we are a united community, community uh, cultivating an environment where every child can grow. Learn a free cell full potential, my sis, my, my sis, uh, my celebration. And not be a celebration of our past success. but also the beginning of even more promising future for each of us. Thank you so much. Long life our, school, and long life Touba. jërëjëf jërëjëf Roqee Ndiaye ci di salaamaaleykum yi ñu ngi leen nuyu te te di leen baalu xaq te di leen ko baal ginnaaw loolu lépp nag nu fas yéene ànd ak yéen ki seen jotaayu laaj ak tontu nu ciy ànd ak sëriñ Abdou Samad Ñang ak sëriñ Ibrahima Gueye ñoom ñaar nag ñu ngi jàngee fii ci daarul Qur'an ba mokkal nekk ci école bi di di jàng majalis ci biir daara ji xam naa dañuy bañ a bañ a guddal ñu jox sëriñ Abdou Samad mu nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaar di leen jaajëfal. te di leen nuyu seen teewaay si jataay bi mooy laaj ak tontu. xam naa ne bañ a guddal nuyoo bi rek jox suñu seex mu yaatal ko. jërëjëf sëñ Abdou Samad ki sa nuyoo matale boobu sëñ Ibrahim bismillah. ñu ngi lay nuyu képp ku jo képp ku teew si bi sa tur ak sa sant te di kontaan bu baax ci teew gi ngeen teew ci jotaay bi euh, kon ñu bañ guddal te tënk foofu nuyoo bi. kon bismillah dañuy tàbb ci laaj ñu tàmbalee ki sëriñ Ibrahima Gueye sëriñ Ibrahima kii day laaj julli juróomi luy seen àtte. jërëjëf ci laaj bu am solo boobu noonu. julli juróom farata la jërëjëf sëñ Ibrahima ci sa tontu matale boobu waaye kii day laaj ku bañ a julli ngir wedd ko luy ab àtteem jërëjëf euh, sa laaj bu am solo boobu noonu képp koo xam ne dafa bañ a julli ngir weddi ko kon bu boobaa moggukatan ñoo bokk àtte dañ koy may diirub ñetti fan ngir mu tuub bu tuubee ñu bàyyi ko bu tuubul ñu rey ko waaye nag reyu kéefar lañ koy rey boobaa lépp loo xam ne dañ koy defal ab jullit kenn du ko defal maanaam duñ ko sàng duñ ko sang duñ ko julleel te duñ ko suul ci armeel jullit ñi te buñ koy suul it duñ ko jubale penku alalam ji it bëgguñu ay mbokkam donn ko wallahu taala alam jërëjëf sëñ Ibrahim ki sa tontu yu matale yooyu dañuy ñëw ki sëñ Abdou Samad daal di koy laaj sëñ Abdou Samad kii day laaj ku sobe taq mu xam ne fii la ko taq nan lay def jërëjëf Cheikh Sourang ci sa laaj bu am solo boobu ki nga xam ne sobe da koo taq mu xam ne fii la ko taq kooku day war ci moom mu daal di wut ndox mu laab daa di raxas foofu wallahu taala alam jërëjëf jërëjëf sëñ samat Samad sa tontu matale boobu waaye bu xamul fan la ko sobe si taq it nu muy def waaye bu dee xamul fi ko sobe si taq nag mm, day raxas yële bi yëpp rek wallahu taala alam jërëjëf sëñ Abdou Samad ki sa tontu yi matale yooyu sëñ Ibrahim kii day laaj ku bañ julli ngir taayeer rek nan lañ koy def ci laaj bu am solo boobu noonu képp koo xam ne dafa bañ julli ngir tàyyeel kon bu boobaa dañuy bàyyi ba waxtu julli dugg si ñu digal ko mu julli di ko ko digal di ko ko digal ba waxtu daruri des benn ràkkaa rakka boo xam ne kenn mënu caa def farata ñu digal ko mu julli bu bañee ñu rey ko waaye reyu gëtal lañ koy rey ngir wane ni kii nii moom ab jullit la waaye boobaa lépp loo xam ne dañuy jëfal ab jullit dana ko ko defal waaye bëgguñu ab julleem ay gaa yu baax teewee ko ngir mu nekk ab soññam si ay moroomam wallahu taala aalam jërëjëf jërëjëf sëñ Ibrahim ki sa tontu yu matale yooyu dañuy ñëw ki sëñ Abdou Samad daal di koy laaj sëñ Abdou Samad kii day laaj kum wóor ni lii sobe la muy sikki sàkka ndax takk na ko wala déet nu muy def jërëjëf sëriñ Seex ci sa laaj bu am solo boobu ki nga xam ne wóor na ko lii nii sobe la waaye day sikki sàkk ndax takk na ko am déet kooku day war ci moom mu daldi di wiis wiis yére ba wallahu taala alam jërëjëf sëñ Abdou Samad waaye bu dee dafa am lu ko taq muy sikki sàkk ndax sobe la wala déet nu muy def bu dee daam lu ko taq muy sikki sàkk ndax sobe la wala déet kon raxas waru ko waaye wiis ga waru ko kon day bàyyi noonu rek wallahu taala alam jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Samad ki sa tontu yooyu matare sëñ Ibrahim kii day laaj nan lañuy sangoo farata jërëjëf sa laaj bu am solo boobu noonu nii lañuy sangoo farata dangay raxas sa ñaari loxo ba fi ngay takk montur ñetti yoon nga raxas fépp fu la taq sobe raxas sa tuurukaayu ndox bi nga yéene fa nga jàpp benn benn xalil sa karaw tànk ndox ñetti yoon raxas sa bopp dëngal sa bopp raxas sa nopp ndeyjoor teg ca càmmoñ ba raxas sa doq raxas sa wetuk ndeyjoor ba ci bati wóom ya teg ca wetu càmmoñ ba raxas yelub ndeyjoor ba teg ca yelub càmmoñ ba raxas sa ginnaaw raxas sa dënn raxas sa biir mu mat wallahu taala alam jërëjëf sëñ Ibrahim sa tontu yi matale yooyu sëñ Abdou Samad kii day laaj ku doon julli ba ci biir mu fàttaliku soba si ko taxoon noonu lay def jërëjëf sa laaj bi am solo boobu ki nga xam ne dafa doon julli ba ca biir mu daal di fàttaliku sobe da koo takkoon kooku day xool bu fekkee ne waxtu wa yaatu na jeexagul kon day dagg julli daal di dem dindi sobe si waaye bu fekkee waxtu wi nag waxtu wi yaatu na bu fekkee ne waxtu wi yaatuwul kon day bàyyi noonu yeggale julli gi wallahu taala aalam jërëjëf sëñ Abdou Samad waaye ku julli bësalmal door koo fàttaliku nag nu muy def waaye bu dee ba mu jullee ba sëlmal la ko doog a fàttaliku nag kon moom day xool bu fekkee ne waxtu wi jeexagul mu daal di dem raxas foofu bu paree daal di baamuwaat julli gi mooy julli gi mu julli woon lay julliwaat waaye bu fekkee ne waxtu wi jeexu nag kon kenn digalu ko mu daal di raxas foofu waaye digaluñu ko mu baamuwaat julli gi day bàyyi noonu rek wallahu taala aalam jërëjëf sëñ Abdou Samad ci sa tontu yi matale yooyu kii day laaj timis bu nga ci rawee ñaari ràkk maanaam danga ñëw fekk eh, imaam julli ñaari ràkk noo koy fayee jërëjëf suñu seex sa laaj bi am solo boobu ki nga xam ne daa ñëw fekk imaam ci mujjalteel rakkaa bi kon bu imaam sëlmalee day jug taxaw te bu mu wax allahu akbar mu daal di jàng faatiha ak saar bégal ko maanaam faatiha ak saar bi da koy wax ci kaw pare daal di rukkon daal di sujjóot ñaari sujjóot daal di toog daal di taaya pare daal di jugaat jàngaat fatiha ak saar bégal ko wax ko ci kaw rukkon sujjóot ñaari sujjóot doog a taaya daal di sëlmal waaye ñu bàyyi xel nag timis sa suñ la ci rawee rakkaan yépp ngay toog waaye ndax boo xoolee ba nga ñëwee fekk imaam di julli rakkaan bu mujj nga ànd ak imaam kon da nga kaa toog te ñaari rakka yi nga julli da toog kon nañu bàyyi xel timis saa suñu la ci rakka yëpp ngay toog wallahu taala alam jërëjëf sëñ Abdou suñu ci tontu yi matal kon nag mbokk yi ñoo gisandoo xam naa dañuy jox sëñ Abdou Samad mu tàggatoo beneen yoon incha allah. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jaajëfal bu baax di leen wax ahlan wa sahlan marhaban bikum salaamu aleykum wa rahmatullah sëñ Ibrahim looy tàggatoog mbooloo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, ñu ngi leen ndokkeel bu baax ci teew gi ngeen teew ngir diglu wala ngir teewlu jataayu laaj ak tontu kon mbooloo mi ba beneen yoon insha allahu rabbi kon nag jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala